ñaan yàlla sunu borom nii nga xam ne ne la nu may mbir mi eh, nga xam ne moo nu téye woon muy Covid bi ñaari at yi mu yolomal ko ba ñu tal koo def mu far ci jógee nag jële ko fii ba faw ba a wéy di ko di ko di ko def di ñaanal Serigne Bassirou Anta nga xam ne mooy di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti te eh, moom itam mbir mi mu itteel ko ba nga xam ne eh, bu sañoon nu mu daan mel rek da koy ëpp kon moom itam dañuy ñaan yàlla sunu boroom mu may ko kàttan ak wér sumb yi mu sumb mu man koo àggale te nu ànd ko ak moom màggal gi mu nekk màggal goo xam ne gi itam dana ci am ndam loo xam ne kenn mosu ko am ci ndam ndax sunu borom mooy mooy defe noonu kenn ku ci nekk fa nga fas bu dikkee rek da nga xanaa lii du la nga xam ne moom laa fasoon loolu noonu lay noonu lay noonu lay fay noonu lay fayee ndax hadisu rabbaani yi loolu la wax da ngay jort ci sa borom li nga xam ne mooy la nga gën a bëgg su ko defee mu defal la loolu li ñu bëgg moom mooy sunu borom may ko kàttan ak may ko ngërëmul borom daaru Muxti li nga xam ne moom lay wut ci lépp nu ànd ko nu ànd ko moom magal gi nag li ñu waxoon ci njëlbeen mooy bis la boo xam ne fukki fan ak juróom ci baraxlu mi di nisfu saxbaan di bisu borom daaru Muxti ak Serigne Touba ñu di ko defee fii ci daaru Muxti nag waaye nag murit yëpp ko bokk jullit yëpp ko bokk réew mi yëpp ko bokk ndax Serigne tubaab Serigne Touba bi ñëpp la borom Daaru Muxti borom Daaru Muxti ñëpp la ndax boo nee Serigne Touba rek ni borom Daaru Muxti boo nee borom Daaru Muxti ni Serigne Touba koo ci bégloo rek bégloo nga ka ca des mbégte moom mi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Fadl waxoon ne moom lañ ciy sàkku yal na ko ci yàlla defal képp koo xam ne kii dugal nga ci sa loxo wala sa xalaat wala say pexe wala loo ci def ba tax mu mel ni ñu bëgg yàlla na yàlla dugal ci biir mbégte moomu mu doon mbégteem tey ak mbégteem ëllëg di ñaan li nga xam ne moom lañ fi wax lépp kenn ku ci ne yéen ji nga am ci sa service ba yëkkati ko yàlla may la ca ndam ba nga xam ne dañ ko indi ci barab bi buñ ko fi indee kenn ku ci nekk la ca sa wàll nga jariñoo ko te loolu moom mooy dëkk bi am ci ndam màggal gi réussir am am euh, sëriñ Bassirou am tañu mel am ko ni mu ko bëggee yaakaar naa ne loolu su ko amee rek ñun ñëpp am nañ ko ndax mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne lii yendu na ci moom rek da nga xam ne mooy yëpp borom daaru Mawti ndax mooy borom daaru Mawti te loxoom la ko yàlla teg kon moom rek la ñuy la ñuy wax ne euh, muy yow wala nga jàllale ci gouverneur wala nga jàllale ko ci ministère ak ku mën na nga xam ne daal li ñu ittewoo rek moom mooy jëmmi màggal gi jag te mu jag jagaay boo xam ne moom mi nga xam ne mi ngi koy door taxawee eh, kenn ku ne dana xam ne yàlla defal na ko ci ndam yàlla defal na ko ci sutura te loolu nu ànd koog moom ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di sant ñi fi teew ñëpp di leen gërëm ba ci ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi kenn ku ci nekk ak mboolem commission yi nga xam ne moom la ñu àndal ci comité d'organisation bi seen i taxawaay ak seen i yëg ci liggéey bi ñoom ñëpp nag ñu gën a takku nag te xam ne dañuy door a tàmbule rek waaye li fekk néewuñu démb la màggal gi dina xaw a tàng dana xaw a metti dana waaye nag ngërëm liñ ci wut ak li ñu jiital rek eh, jar na lu ko ëpp kon maa ngi soññ ñëpp ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal waaye waa dëkk bi itam ñëpp ci ndigalu Serigne Cheikh Assou Faye mi nga xam ne mooy saytu biir dëkk bi rikkuwaay kenn ku ci nekk na taxawee taxawaay boo xam ne bi day mel ne yow dong dong dong yaa yor gan yi day mel ne yow dong dong dong yaa mën a defar màggal gi su boobaa rek lépp dana jag eh, bi am sëriñ bi sëriñ bi békk nu bëgg ci sëriñ bi am ndam nu am ci ndam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu dajal woon tey mooy euh, waajal màggal daaw euh, bi ñu sëriñ Bachir wooye ni ñu jàpp nañu màggal gi euh, ginnaaw bi ci waxtaanee xalif général des Mourides ni dañ koy def ñoom ci mbégte lool comme ni ma ko waxee ci ndorteel gi am na loo xam ne bu la si yàlla boolee da ngay sant yàlla ndax li nga ci mën a def lu mu néew néew yàlla barke la ko loolu moo tax euh, bi ma ko sous préfet bi ma ko sous préfet waxee ñu jàpp date bi pour ñëw waxtaane euh, loolu nag ñu ànd si ay service ma fi jaar remercier leen bu baax ndax sëñ bi nu ma koy waxee souvent joxe ndigal baax na waaye yéene bi koy def ak application bi si ñoom ñii la ndax bu ñu joxe woon ndigal euh, euh, su booba ngoon te ñoom euh, liñ ci def du baax itam ndigal bi du am benn njëriñ donc nag dama leen di remercier si yéene bi ñuy am yenn saa yi ñu def sax li nga xamante ni waxuñu leen ko ba lépp mën a mën a baax biñ fii teew sa ci suba ñu ngi tàmbale sécurité yaakaar naa niñ ko waxee am na loo xamante ni buñ koy def bu ci kaaraange amul kenn du ko mën a kenn kenn du ko mën a def surtout que màggal daaru li muy dajale ci nit il faut ngi nekk fa donc nag euh, kaaraange gi gendarmerie la nga ko dénk ndax fii zone gendarmerie la euh, comme ni ma koy waxee nag gendarmerie boo ko dénkee mbiru sécurité ñoom euh, li ñu xam la seen liggéey la te commandant joxe na fi ay assurance ni dinañu indi élément yu doy élément yu doy dañ ko fi indi ci daaru pour mën a assurer sécurité bi mun a tenir accès yi mun a sax euh, dem ba joxe élément yu civil yi nekk ci biir nit ñi ndax yenn saa yi euh, homme de tenue buñ ko gisee dinañuy def duñu du ñu def dara defkatu defkatu ñawte bu gisee takk der bu bu